def geste bi oh combien important pour moi parce que tey yaakaar naa ni nit amul lu dul nga dëkk daal. ñoom bu ñu bayee seen yitte yëpp tey ñëw suma dëkk jël seeni moyen moyens jox ñu pour ñu ànd ensemble xeex mbas mi yaakaar naa ni geste mënta gën a fort loolu. kon ñu ngi leen di féliciter et di leen réitérer que ni yéen a ngi continuer à renforcer les orientations du chef de l'État dans vraiment tous les niveaux nag te loolu ci ngeen mës a nekk. di leen wax ni continuer euh, dans ce lancé xam ni le président est vraiment euh, est une chance pour le Sénégal te moom il a toujours prôné pour un pays un Sénégal prospère basé vraiment sur la paix la solidarité l'équité et la justice sociale loolu la monsieur président de la république prôné donc su waxee loolu yéen yéen a ngi koy entre traduire en acte te yéen a ngi dox yéen a ngi wax donc la CODIC man mënu ma leen loolu CODIC mënu leen a bañ a gërëm mënu ma leen a sant donc vraiment nous sommes très contents di remercier aussi mon ami mon camarade Mamadou Diène de la FER aussi euh, moom mi nga xam ne aussi boobu ba léegi maa ngi moom ñu ngi ciy taxaw ak suma camarade aussi Abdou Diouf bu Tuubaatul mm. di wane ni aussi lii c'est un groupe boo xam ne ñoom ñoom maa koo def ko mm. parce que ñun dañoo mës a gëm ni mm. le projet politique et un projet collectif moo tax ñu xam ne c'est l'union qui fait la force ñu gën a joxante doole gën a jàppale le président de la république fi mu bëgg a yeggale Sénégal mu yeggale fi maa ngi gërëm ñëpp wasalaam monsieur Sow Abdoulaye directeur de l'école dem ba Diakhaté donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant monsieur Ngom ci wax ju rafet ji ngeen wax te di leen dalal jàmm ci école bi école bi nag bu ngeen ñëwee fekk ngeen fi man directeur bi fekk ngeen fi tous les collègues yi may liggéeyal tous les adjoints qui sont à l'école ñoom ñëpp ñu ngi fi teew ensuite APE bi mu ngi nii ñu ngi nii taxaw ñu ngi nii sama ginnaaw donc Baba Ndiaye ak euh, le trésorier mm. El Hadj Badara Kane mm. heure bi waroon na fekk donc CCB yi il a une double casquette ici mm. en tant que maître mais aussi en tant que euh, représentant du maire ici mm-hmm. euh, normalement l'IEF devait devait être là mais xam naa ni ñoom seen liggéey bi moo leen jàpp parce que ils sont ils doivent être sur le terrain pour di dem seete ay kii CAP ak yooyu mm-hmm. moo tax ñëwuñu mais de toutes les façons on lui on lui rendra compte fidèlement que de ce qui s'est passé ici donc ñu ngi leen di profiter de cette occasion pour vous remercier pour ce beau geste que vous avez fait parce que tout un chacun ñëpp xam nañ ni xam nañ ni période bi ñu nekk période de pandémie bi ñu nekk que matériel bii école yeeg ñëpp yittewul nañ ko école yeeg euh, élémentaire yi CM yeeg lycée yeeg ñëpp yittewul nañ ko parce que avec le nombre d'élèves que nous avons c'est pas facile de donner ce matériel là à tout le monde c'est pourquoi ce, la réception de ce matériel vient à son heure. Ali Sagna, ancienne internationale de basket et chargée de mission du président. tey euh, lii ñu def tey maanaam dafa am benn kuréel bu ñuy wax codic CMPR c'est-à-dire le collège d'information et de communication des charges de mission du président voilà ñoo jóg tàmbale wër si biir Sénégal def euh, les quarante cinq départements pour accompagner vision suñu président de la République c'est-à-dire président Macky Sall si lii nga xam ne que mooy mbas bi di pandémie bi voilà ñu jóg nag tàmbali suñu lancement bi si fii nga xam ne que fa laa nekk muy Parcelles Assainies bokk si département de Dakar ñu jël fa cinq écoles dégg nga maanaam vingt 24 muy primaire 24 bi ak euh, la case de tout petits ak CM20 bi nga xam ne que ñetti école mi ngi si biir ñu jógee Dakar sama collègue Ali Diallo wax na ko ñu dem Géejawaay dem Pikine jóge fa dem Fatick dem ñaaxa dem euh, après Mbane jóge fa benn village fa nekk jóge fa dem Sokone jóge Sokone dem euh, euh, Nioro di jóge Nioro di dem Porokhane tey ñu egsi fii si Thiès voilà war a continuer dem ci Touba bu ñu jógee fii tamit ñu war a def Casamance maanaam si Bounkiling jóge fa dem Goudomp jóge fa dem Sédhiou ak Ziguinchor parce que ñoom ñooy génn di ñëw di duggaat si biir kër yi de ce fait que bu ñu duggee ñu ànd sek enseignants yi fi nekk dégg nga ak APE yi dégg nga ak enseignants yi jóg waxtaan ak ñoom xamal leen ni dëgg la levé nañu tey jii fu mu nekk état d'urgence bi mais xamal leen tamit feebar bi ba léegi mi ngi fi te mi ngi reyee bu mujj rek suñu frère. Feution Seck yal na ko yàlla yërëm te xare si asamaan yu gën a kawe te yéexal ñu moom loolu moo ko yóbbu voilà raison pour laquelle moom laa lay wax ñuy def tournée des écoles voilà di ñaax nag population bi ak vaccin bii nga xam ne que tey suñu président jëli na ko ñëw indi ko fii si biir Sénégal dégg nga ñu wax leen nañu jóg dem vacciner ji ndax dëgg la levé nañu état d'urgence bi mais feebar baa ngi fii pour mën ko baare nag lenn rek moo ko mën pour ñu lutter contre loolu maanaam mooy ñu dem vacciner ji. may Baba Ndiaye. di président comité de gestion école bi. geste bi nga xam ne Lamine daf ko def. ànd ak kook euh, collègue bi di Diène. dafa nekk ko geste bu noble bu ñu bëggoon mu ñëw ci waxtu bi mu ñëwee. Lamine du tey la mos a def lii lamin ba démb ñun ñi nga xam ne man maa jiitewaat union de CGE bu commune est démb geste bi mu ñu defalaat des genre daanaka geste bu mel nii la ndax biñ nekkee ci réunion bi en même temps lu ñu fa fa am rek xéwloo ko rek Lamine moo ñu ko jox ci meeru Pape Diop boo xam ne Pape Diop mi ngi nekk ci réew mi kon lii monsieur Cissé bay wax mm-hmm. amuñu xaaju amuñu seen mm-hmm. ñoom seen développement ñu ngi ko jëmale ci mm-hmm. popularité bi kon loolu danañ leen xamal ne ne geste la loo yoo xam ne geste yu rafet la il faut que ñu wax ko ñoom bokk nañ ndey bokk nañu bàyyi Lamine dañ lay wax encore une fois jërëjëfati ndax du tey barki démb les anciens élèves nga ànd ak ñoom Ibou jaañ ak ñoom lamin Diop ñëwuloo fii waaye la nga def gis nañ ko mm-hmm. kon bàyyiwuloo ñu benn yoon mm-hmm. loolu nag bu amee il faut que ñu wax ko mu leer jëm ci kaw li directeur wax ne duñu duñu politique naam ñun aussi politique uñu waaye nag bëgg nañ lu baax képp ku lef lu baax ci mm. réew mi mm. jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ jabote mm. ñun nga ko defal ba tax na kon geste bi bu dee président moo initié lii ngeen ko ciy jàppale gàcce ngaalaama monsieur le président santaat nañ it ci politique bu jeexee opposition pouvoir rek. Hmm. Ah, comité civil. ñëpp nañu ànd ndànkali ko liggéey pour la popularité. Hmm. loolu mooy njëriñ. man loolu laa xam. ba tax na kon monsieur le Idrissa Seck. Hmm. dañuy kontaanaat ci geste bi mu def. ñun waa Thiès. ñun nag kontaan nañ ci loolu. bu lool jàllee it. Lamine gërëm naa la yaag sa staff ñi nga àndal lii du tey ngeen ko def. yaag ngeen ko def. ci domaine yëpp nag ci biir ci biir koñ bi. bàyyiwu leen fenn moom macha allah tubaar fakàlla lii lii ku ko dégg dañuy xam ne Lamine defati na. Ah. ba tax na yéen ànd ngeen télévision. ku ko gis dañ naa ah Lamine defaat na geste. Mm. kon tubaarkalla macha allah. Mm. Ali Diallo chargé de mission à la présidence de la République. Nous sommes ici aujourd'hui à Thiès dans le cadre du tournée que le collège d'information et de la communication des chargés de mission du président de la République fait dans les 45 départements du Sénégal. L'objectif de cette collective, c'est de doter les établissements pour lutter contre la pandémie Covid-19. Cette pandémie est catastrophique, d'autant plus que ça touche le monde entier. Nous, chargés de mission, accompagnés de nos camarades ici présents l'international Nathalie Sagna, Moussé Mané de Brooklyn. Aujourd'hui, Mamadou Lamine Gom qui nous, a, qui nous a reçus ici et Abdou Diouf qui est dans la région de Thiès, mais à Toubatoul. L'objectif c'est de toucher l'ensemble des établissements dans le cadre de la lutte contre les pandémies. Aussi pour permettre et sensibiliser les populations, d'autant plus que les élèves et enseignants, à leur tour, d'informer et de sensibiliser les parents pour se vacciner contre la pandémie Covid-19. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a octroyé des vaccins Sinopharm AstraZeneca pour l'ensemble du pays. Cela n'empêche, si vous êtes vacciné, cela n'empêche que vous devez respecter les gestes barrières, c'est quoi Porter masque, de se laver du savon ou du gel antiseptique pour éradiquer complètement cette pandémie-là. C'est dans, dans, ce cadre-là que cette tournée, on l'a démarrée à Dakar, aux parcelles d'Asseni, unité 24, unité 20, Pikin Guédiawaï, Fatik, Fundjoun, et aujourd'hui on est à Thiès, Et demain après-demain, nous serons à Casamance, à Sédou, Brooklyn, Godomp et Giguinchor. C'est ça notre objectif, de participer et de combattre aux côtés de son excellence, M. Macky Sall, qui est depuis 2 mars 2020 a pris les initiatives pour lutter contre cette pandémie-là. C'est dans, dans, ce cadre-là qu'on est ici aujourd'hui à dans l'école élémentaire de, de Demba Diakhaté, Vous avez tous vu les dotations. On a amené 20, euh, 10 de gel de 24. On a, on a amené 2 cartons euh, de savon antiseptique euh, de, de, 12. On a amené 20, euh, 12 euh, cartons de masques qui, qui fait 50 pièces. C'est dans ce cadre-là pour, pour participer à notre manière et aider le président qui, qui a fait beaucoup Je vous remercie.